pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média comme ni ñu ko defee chaque jour rek di leen toppal làmb ak li nga xam te bi ñoo bokk ci làmb tey nag ñu ngi fi nga xam mooy Médina Russie seet si suñu xarit suñu grand frère muy Moustapha Kandji ah di suñu waay ñu ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax baax seet si ko nag pour seen waxtaan ak moom dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi ñuy suivre su ko defee ñoo ci waxtaan bi Tafa maa ngi lay nuyu di la siyaar waa Thier maa di la ziar bu baax baax a baax yow tamit di ziar fidèle internaute yu ETDR Média uh-huh. di nuyu waa Sénégal di jiital ci nuyoo bi nag euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di xalif général ku lu murit yàlla suñu borom guddal fanam. amiin di ñaanal Serigne euh, Babacar Sy Mansour di ñaanal bépp kilifa diine ak kilifa aada. di ñaanal waa jàngu bi aussi di nuyu waa famille làmb di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci ñëpp tamit. Mhm. waaw tey ETDR Média seet si la fa seen waxtaan ak yow. fi nek ak fi làmb toll avant tout meja. Média waaw contentement rek contentement lañ ci am wax deug yalla parce que ETDR Média sa yëf la sama la mhm. yëfu askan wi la mhm. donc euh, tay suñu amé opportunité ma jaxarlo ak yeen ñu wara a lamb mhm. vraiment mirlo contentement la parce que mbir la mo xamanteni buñ koy gis buñ koy xol dañuy fier ci suñu bop ba paré dañ ci gis suñu bop quoi la donc yalla yalla suñu borom jëmele ko kanam amin lépp lu ngeen ci séentu rek yàlla defal leen ci lu kawe seen njort mais am naa contentement bu baax nag jàkkaarloo surtout ment aussi ak yow nga xam ne tu es un frère vraiment sama nit nga nit ku baax nga macha allah ah, am na solo lamb ji naxamu noo gisee lamb ji tëj na tëj na démb début saison bi démb noo ko jàngate waaw lamb de xam nga lamb nag day suñu cosaan boo xamante nii ah. boo ñëwee démb stade da ngay xam ne gars yi dañ ko namoon macha allah di ci di féliciter Ibrahima Diop le promoteur kadior production nga xamanteni mom nit ku bax la machallah allah. Mhm. vraiment lambam ji demb ñëpp ñoko yene won réussite ñu nga xam ak ñu nga xamul deug la parce que wax deug yalla am yoon bi xawon na metti mais nak euh, alhamdulilahi rabbil alamin quoi mhm. bu dé côté amateur aussi euh, namon nañu ambiance waaw namon nañu ambiance parce que euh, vraiment di ñaan rek comme ubbi na ci bisimilahi rahmaani rahim mu tej aussi ci alhamdulilahi rabbil alamin mais demb vraiment sétane nañ lamb di neex bu neex neex mhm. tay damay ñew taxaw ak yow ci combat bi nga xamante bi yàgg na muy diggante Modou Lo Ama Baldé coow Modou Ama Baldé combat boobu engouement bi noo ko jàngatee. waaw mais Thier loolu c'est tout à normal parce que ñaari mbër yi ñoo toll noonu ko seen dayoo moo tollu noonu. Mhm. ba pare ñu am passé. passé waaw ñu am passé ñu xam ko ñu jaar ci mbapat. ok donc xam nga coow li daal di bari. après loolu moo leen topp tey ba fii ñu toll nii. Mhm. làmb ji vraiment am engouement ñaari champion di ko bëre ñaari mbër. ay mbër waada. Mhm. moo tax nag euh, faaw coow li bari quoi. faaw bari waaw. Mhm. Mhm. tey jege nga mbër yaa ngi taxawu mbër yaa ngi jàppale mbër yaa ngi ànd ak mbër tey fi coowu Modou Ama toll moment bii nii ñi sës si mbër bi wala mbër mi ci lan la war a nekk moment bii nii pour am conscience tranquille pour mën a nekk ci combat am. waaw actuellement nag mbër mi li mu li mu gën a soxla wala ñuy topp ci moom. waaw mbër mi ak ñuy topp ci moom ñëpp. sérénité d'abord. avant tout sérénité. parce que làmb bu demee ba tollu fii rek. dañuy soxla ñoo xamante ni dañuy am sérénité quoi di ànd ak seen xel. Mhm. loolu da ci am solo mbër mi aussi ci fi mu ne nii. presque mën naa naa wax na la day dugg ci dernier virage bi préparation bi uh-huh. donc contact yi dañuy commencé di ko sax xaw a wàññi mm-hmm. wàññi contact yi waa di xaw a wàññi contact yi parce que la ji su ma jumul presque desetul un mois wala ci lay yem waaw un mois la cinq la la cinq la tey la deux ci yàlla yóbbu wax jàmm donc mbër mi fi mu nii ci loolu lay toll day commencé di wàññi rythme entraînement yi mm-hmm. ñi nga xamante nii ñoo topp ci ginnaawam aussi actuellement dañu war a am esprit bu tranquille mm-hmm. sérénité bañ di wax dara loo xamante nii day duteloo mbër mi wala di ko bañ di wax dara loo xamante ni daf koy yokk pression xam nga pression sax mënut a ñàkk. mënut a ñàkk waaw mais na nekk pression boo xamante ni bu positif lay nekk. waaw foofu la mbër mi war a toll ak ñi nga xamante ni ñoo koy dara ci sama xam-xam bu gàtt ko uh-huh. mhm. dañuy jàngat euh, ñoom ñaar bu ñu war a def fesi fesi wala ñu jàkkaarloo rek faa mu am coow ak détail loolu lan la. engouement bi la rek xiifante la wala engouement bi wala lan waaw engouement bi ak xiifante bi. ak uh-huh. xiifante bi am na parce que xam nga da ngay dégg. Ama Balde à chaque fois muy wax ne moom dañ ko créé pour mu nekk roi des arènes. waaw waaw waaw nag macha allah parce que fii mu agsi aussi moom moo fi indi boppam ak njàmbaaram quoi. Ah, ah. mbër la boo xamante ni vraiment def na carrière bu rafet. Mhm. Modou Lo aussi da nga koy dégg mu ne dama bëgg a daan Ama daan booy Niang yóbbaale couronne bi. yóbbaale couronne bi donc loolu nag mooy tax parce que ñoom ñaar ñëpp. Mhm. buñ la ko waxee ak buñ la ko waxul kenn ku ci nekk am na loo loo guuxal sa morom mais sportivement quoi. waaw loolu mooy tax ñoom ñaar seen daje. day metti waaw seen daje day xaw a metti quoi. waaw tey gis nga Modou état bi gis nga Ama état bi ñoom ñaar noonu la gisee ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci état. ñu ngi ci état. ñoom ñëpp ñu ngi ci état làmb ji li ci xaw a li ci xaw a doy waar. mooy ci côté Ama Baldé làmb ji day kumpa ci nit ñi. day kumpa waaw ci ñi ko jegewul. waaw kumpa ndax lan. waa parce que xamuñ ci lu mu nekk. xamuñ ci lu mu nekk waaw. waaw te làmb ji dafa laaj loolu nag. Ah. Ama dafa lëlu tëju ak ñi mu war a àndal di liggéey mais nit ñi xamuñu ci lan la Ama nekk ci lu mu nekk waaw loolu moo leen jaaxal par rapport ak Modou bi ñuy gis euh, jàmbaar bi ñuy xam nga Cambérène muy sumeeku di contact waaw moo tax léeg-léeg ngay dégg yenn nit ñi sax di avancé que ne Ama pareegul mais xam nga làmb waaw kenn ku ci nekk ceer ak sa point de vue mhm. xam nga pataasama daaxal pomme de terre moom kuñ ci tëj sa avocat baaxul baaxul waaw nit ñi kenn ku ci nekk day wax rek ni mu gisee man ni ma gisee laay wax ceer keneen keneen mm-hmm. mais après ñi nga xamante ni ñoom ñooy principal concerné yi mm-hmm. parce que man je pense que ne Ama Baldé combat capital bu toll nii waaw combat bi duré na presque quatre ans mm-hmm. ñemewuñ ñëw ba toll fii sawaay war ko bëree ba pare te Ama Ama parewul loolu moom yaakaar naa ne Ama Ama genre yabewul noonu sax waa Pikine jabeewuleen noonu mhm. lamb ji day kumpa ci côté Ama Baldé lamb ji mu fonk la ah, mais tamit est-ce que nekkul tax gars yi ne Ama parewul mooy koor gi ni ñu ko gisee état bi nekk ci moom ci weeru koor gi par rapport ak face à face bi ni ñu gisee état bi wàññeeku carrément moo tax waaw mais léegi-léegi loolu day nax nit ñi nag ah. parce que exemple tey su ma jëlee ci côté Boy Niang waaw bi mu njëkkoon a yor bi muy daje ak Balla Gaye euh, Daniel Sorano waaw bokkul ak état bi mu bëree ak Balla donc loolu day nax ñi nga xamante ni xam nga wala jegewuñu mbër mi quoi mais xam nga combat bu ci nekk ak noo koy bëree stratégie da ci am quoi stratégie stratégie de préparation day am en plus bu fekkente ne danga nga nekk ak ay tàngam ñoo xamante ni ay mbër lañ xam nga am na ay magu mbër am na ay mbër mm-hmm. donc xam nañu mbër mi lan moo adéquat pour moom pour mu war a mën a dem bëre ak loolu ok donc loolu dañ koy bàyyee ak staffu mbër mi ak mm. mbër mi en personne parce que kenn gënu ko xam boppam uh-huh. mais amateurs yi aussi am nañu droit ñoom aussi di wax seen gis-gis. comme mm. noonu nga uh-huh. que kennam gisee man gisee wu woo noonu waaw ginnaaw ñaari mbëri pare nañ lan la ñuy bi ci diggante Modou Ama ñoom ñaar ar bi gën seen diggante. ñoom combat bu explosif. Mm-hmm. combat bëgg na mbër bi dox ci kawam te Ama moom ar bi ne pirip kaw la jëm. waaw waaw bëreetu Ama Baldé waaw Ama Ama loolu nature am la moom wax dëgg yàlla am loolu la ko yàlla bindee. Mm-hmm. moom bu arbitre sifflé moom. Uh-huh. moom du fa dafa guddeel euh, amateurs yi moom ak supporters yi moom Modou aussi bëgg na di recevoir mhm. mais léeg-léeg tamit nga recevoir loo xamante nii dalay ëpp doole du la arrangé waaw waaw du la arrangé ah. du la arrangé xam nga làmb dafa xaw a doy waar nag waaw des fois mën nañ la séentoo fetal nga fitt mhm. des fois mën nañ la séentoo noor nga ñëw sud sud waaw moo tax làmb ju doy waar la macha allah di ci ñaanal nag euh, sama frère Ama Baldé ah. parce que am nañ ay relation yàgg nañ xamante Mm-hmm. xam nga dañuy déggante di ko ñaanal ndam lu seddu guy yàlla na ko ko suñu borom defal nooy déggee Modou mu ne Ama moo gën a neex a bëreel moo gën a neex a daan non ay rek ah <laughs> Modou ah. maa ngi koy baax di day sànni xeer nii mm. bëgg a la dud rek ah. mais Ama moo gën a neex a daan ak ay booy daan na xaree bëreel ay waxu mbër la nii rek ah. ay waxu <laughs> stratégie la noonu rek mais wax yooyu ça tient pas damaa jëli sa xarit sama papa Père Mansour Diop mm-hmm. mu ne Ama Baldé Modou Lo Modou du bëre lu amaa def da koy dindi da koy yàq mun na ci am wala. mu na mootloo du bëre. du bëre maanaam day bàyyi ak Ama mu bëre lu amaa def mu yàq. waa mën nga koo imaginer noonu de. waaw xam nga des fois euh, xam nga des fois day am lamb yoo xamante ni wax ci. waa maanaam c'est un peu compliqué. quoi day métti waaw day xaw a jafe maanaam vue tactique ak technique gu ñaari mbër yi. doo ko bëgg a décortiquer. waaw parce que xam nga Modou Lo. Mhm. Modou loo xam nga li muy li muy jug di dox ci kaw mbër xam nga bëriwul. waaw donc li muy recevoir wala li muy daje ak mbër. moo ëpp moo gën a bëri waaw. Ama Balde moom. day dox. day dox sa kaw. moom day dox ñëw. Uh-huh. Père Mansour Diop nag. xam nga ku la jiitu ci néeg bu lëndëm boo fa duggee moom moo lay wax fi ngay toogee dëgg la moom takk na ngemb moom bëree na ba bàyyi bëree mm-hmm. moom nag moom moom lu mu ci wax rek moom duñ ko mën a discuter téere la waaw waaw waaw téere la moom mais combat bi mën na am humilier humiliation humiliation waaw si ñaari mbëri kenn jàpp moroom humilier ko <laughs> ah waaw xam nga làmb moom. Eh. làmb xam nga lamb moom boo cay dem da ngay yóbbu lépp comme ni ko gars yi di waxee. waaw làmb lépp mën na ci am. Ah. mais yaakaaruma ko nag humiliation yaakaaruma mu am ci làmb jooju. mu am ci ah. yaakaaruma ko. làmb ji mën na diire wala sa gis-gis comme ñaari mbëri tàngoo seen tàngooru yaram ñoom. waaw ça dépend nag. Ah. ça dépend ci la façon doo ni Ama di attaqué ak ça dépend ci la façon doo ni Modou Lo di. recevoir di recevoir Ama Baldé sa dépend quoi. Euh, ça dépend dépend ci ñaari mbëri daal. voilà waaw ça dépend ci aussi seen tactique. waaw ak kenn ku ci nekk jour boobu fraîcheur bi ngay indi ci lamb ji. c'est très important aussi. combat boobu lu koy jeexal technique mental doole physique mystique wala. xam nga mooy li ma la wax làmb jooju doy doole mën na ko jeexal. waaw làmb jooju technique. mais làmb jooju kenn mën na ëpp moroomam doole. ci Modou ak Ama. ba mais bien sûr yaakaar naa ñaari góor bu ñu dajee. waaw même mën na bañ a bëri mais yaakaar naa ne dina am ku ci ëpp. dina am ku ëpp doole waaw dina am ku ci sàcc doole man nag sàcc doole bi ci côté Ama sax laa koy. ah yow Tapha da far. non non non du far xam nga seen morphologie ñoom ñaar fii seen morphologie ñoom ñaar boo leen gisee ak ni ñu bindoo. waaw. bu fekkente ne Ama mi ngi ci li mu war a nekk dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg à l'heure actuelle. Uh-huh. non vraiment buñ taxawee mooy sàcc doole Modou. moo sàcc doole Modou. moo koy a jeexee ci Kaawo combat boobu. Kaawo waaw. ah dugg na Pikine bi mu fay mujj Kaawo la fa bàyyi <laughs> ah, waa dëgg la de dugg na Pikine Kaawo la fa bàyyi de. dugg na Pikine. Euh, bàyyi fa Kaawo. ñuy nuyu suñu grand Eumeu Sène. Uh-huh. mais nag chaque jour du dimanche de. chaque jour du dimanche te booy ñoom tamit booy yi nee nañ ko màgg nañ de. Ah, xale màgg na. waaw waaw xale màgg na. kon daal ñu xaar combat bu neex ci diggante Modou Ama. waaw combat bu neex macha allah dina nekk combat bu neex. di ñaan yàlla xëy suñu borom yóbbuñu ci xanaa ci jàmm ak salaam. amiin vraiment ñu fekkee ko te tal ko. te yàlla suñu borom may Ama Baldé ndam. incha ah, allahu rabbi incha allah di nuyu promoteur bi aussi di leen ñaanal ñoom aussi réussite totale daal. Mhm. làmb ji nit ñi di xaar la daal. yàlla na am ci jàmm a salaam. waaw coow li bari na nag waaw làmb nag xam nga coow la sant. waaw coow la sant. waaw làmb ci coow lay commencé ci coow lay. jeexee coow lay tëjee waaw. <laughs> kon daal nañ ñëpp xam daal làmb baaxoo noonu daal surtout combat bi ñu jëm. làmb moo baaxoo noonu surtout combat bi nga xamante ni moom la ñu jëm. moom la jëm. donc coow li tamit na nekk rek coowu jàmm. parce que xam nga euh, sport. waaw ci samay kàddu damay prôné toujours ne sport day boole mais du tàqale la parce que tey boo seetloo ñi ëpp wala tey ñi créé Rock Énergie yëpp. ci saalu Père Fallaye boobu lañ. jàngee bëri donc kon. muy diggante Modou Lo ak Ama mhm. ñun ñëpp ay frère lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay benn ngoon la xam nga ben takusan la ben histoire de 10 minutes. DR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mak bu yeungu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabax keur réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu yem établissement Touba Darou Rahman sou la nexé mën nañ la jox kaya amé amna gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevée tabax xuule ak raax ci second œuvre bi nak ci ngeen di fekk électricité ak plomberie